comme suñ teewaay yàgg nañ ko kii ça fait des mois ñu ngi mobiliser au niveau de à la place de l'obélisque pour exiger la libération des détenus politiques muy ñu ñuy woowee force spéciale muy ñu ñuy woowee euh, Papito Kara Ousmane Diagne professeur Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye Xurum Xaak Ndongo Diop et consort nga xam ne dañ leen teg loxo ci lu tegul ci benn yoon jaay leen doole parce que bokkuñu APR wala bokkuñu benn Bokk Yaakaar parce que li ñu leen di toppee t te mu doon ay tuuma te ci dara am na ñu bokk ak ànd ak Macky Sall def lu ko pire sàcc ay milliards Sénégal mujjul fenn di euh, trafiquer ay passeport diplomatique mujjul fenn di trafiquer ay ay ay faux billets 32 milliards faux bu Bougazelli tey moo gën a libre euh, kuy libre fii Sénégal loolu moo dul dëgg du yoon il faut que Macky Sall respecte les Sénégalais li nga xamante ne juste mooy justice justice réew mu tàkk moo ko taal donc cette justice bu ñuy manipuler loolu warul am dans un état démocratique dans un état démocratique il faut observer ou bien faire l'observation de la séparation des droits, de, de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif ne doit pas euh, avoir une mainmise sur le pouvoir judiciaire mais malheureusement loolu lañ constaté Macky Sall a tout fait pour avoir la main mise sur le procureur de la République la main mise sur son juge d'instruction la main mise sur le président ou bien les magistrats qui sont au niveau de la Cour suprême la main mise sur les magistrats qui siègent au niveau du Conseil constitutionnel rien que pour les manipuler euh, à des des finalités ou bien à des gains politiques chose qui ne peut pas se passer dans dans ce Sénégal Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur, perdu leur vie pour que Macky Sall puisse être président aujourd'hui. En il y avait combien de morts pour la démocratie Mais pourquoi Macky Sall, en venant au pouvoir, veut, veut fouler aux pieds ces acquis démocratiques C'est inadmissible. C'est inadmissible, raison pour laquelle on est là pour exiger leur libération. jërëjëf. Euh, euh, léegi Abdou Karim euh, Abdou Karim collectif bi rek laa bëgg nga ñëw leeral ci tuuti parce que collectif des pour ñoom yéen loolu mhm. waaw dafa am ay mouvement de la société civile ñoo xamante ne ñu xam nit ki ñu ñàkk xam nit ki ñun am nañu ñu jàpp tey xamuñu leen mais dañ leen di xeexal par principe. donc ce collectif c'est un collectif pour la libération des détenus politiques mooy ñu ñu fi lim sànq les forces spéciales Papito Kara ah, ah, ak ñoom i seen nga xam dañ leen jaay doole tëj leen ci lu tegul yoon ñooñu lañ ñëw pour libérer ñooñu lañ ñëw pour plaider parce que mënuñu xeexal seen bopp fu mu toll ni ndaxte ñu ngi prison collectif ay organisation de la société civile politique moo tax tey ñu ngi waat fii loolooy collectif bi leur objectif je pense que tout boole suñu doolee pour mën a exiger la libération de ces détenus politiques. ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu jataay bi ni mu demee parce gis nañ fi suñu mag ñi ñu am troisième âge gis nañ fi ay xale yoo xam ne amaguñ majorité gis nañ fa ay jeunes comme ñi ma jàkkaar lool kon donc Sénégal yëpp teew nañ waaye xam ngeen lu leen di xamal ne Macky Sall nekkul président de la république bu gën ci réew nekkul président de la république boo xam ne xam na ne aw askan ñoo ko jiital bëgg-bëggu askan woowu la war a doxe xam ngeen nan ngeen koy xamee ñaari yoon mi ngi nii ñi ngi taxaw fii di mars pour ñu libérer détenus politiques yi nekk ci réew mi moom ak ñi ko wër doo gis kenn ko ci wax jëm ci di wane ne ñun ñi ay nit lañ waaye xoolal Ablaye Diouf Sarr benn sorti bu ndaw la def wax ne Macky Sall ma kontaanuma président de la république jëm jëmi boppam jël kàddu gi moom naan waaw ngeen muñ parce que parce que ministre réyul nangam ak nangam kon donc moom dégluwul waa réew mi waa parteem nay déglu su waa réew mi meree faale leen waaye bu waa parteem meree mu génn wax ak ñoom loolu mooy dëgg kon Macky Sall désormais nekkatul président de la république mais président APR kese la loolu moo tax kaso yi li bari bari ay nit benn détenu boo xam ne da ngaa jege Macky Sall wala nga jege ministre amu ci mbooleem ñi jàpp di leen jaay doole ñooñu dañoo bokkul ak Macky Sall wala bokkuñu APR loolu mooy dëkk di métit bu baax suñu mbokku càdd la fa xew loolu nag ñun peuple sénégalais yëpp ñi nga ànd ak ñoom jooy nga ànd ak ñoom métit yi waaye nag di ci jël ab leçon ñun doomi senegal di wax ne gis nga bu dee dund mooy bu añ jotee ñu jox la nga lekk bu naan jotee ñu jox la nga naan nga am fooy dëgg kon xar yi ñooñu dàq dund parce que xar yi ñu ngi lekk ñu ngi naan am nañ fu ñuy tëgg loolu du dund su fekkente ne tamit dund mooy di daw di liggéey di ba guddi nga tëdd boo xëyaatee di liggéey ba bëccëg ba guddi nga tëdd su weer deewee ñu fay la nga jël ca lañ la fay boo ci lekkee fay ci fi nga dëkk mu jeex takk lool du dund parce que avant jamono jii di ñëw jaam yi dañ daan xëy di liggéey ba guddi di fanaan njaam googu ñu nekkee woon mayoon na leen fu ñuy fanaan mayoon na leen lu ñuy lekk nit bu fekkee liggéey loo lekk ak foo tëdd dong la lay jox loolu du liggéey kon lan mooy ak dund dund dëgg-dëgg buñ koy wax liberté la liberté nag liberté de exprime moo ci jiitu doog ñëw liberté expression doog a ñëw bis bu nekk ñu tijji rajo yi ci Sénégal naan nit ñi wax leen seen xalaat waaye waxuñu ñu ay xalaat mooy waxuñu ñu dëkk presse bu jeng politiciens yu jeng imam yu jeng kilifa diine yu jeng loolu rek moo fees Sénégal Macky Sall bu fekkoon ne nit ñi danañ ko wax dëgg nii mu nekk ci réew mi di tëj ay nit parce que da doon reetaan loolu du am waaye nañ xam ne otage lan mooy otage mooy koo xam ne nii ay nit ñoo dajaloo def la otage gis nga Cheikh Omar Diagne Macky sàll moo la gën a nekk otage téeméeri junni yoon Abdou Karim Gueye moo la gën a nekk otage euh, Macky Sall moo ko gën a nekk otage téeméeri junni yoon Ami Dia Macky sàll moo la gën a nekk otage téeméeri junni yoon parce que moom dafa nekk ci ñetti otage benn otage bu njëkk bi mooy France mi nga xam ne moo taal Tchad topp ci ginnaawam di ko dicté te sañu ta day bañ loolu benn otage la ñaareelu otage bi mooy parteem waxuñu ko dëgg ànd ñoom ay intérêt ba ngóor gi jeex ñu dajaloo seen biir daan ne waa kat duñ ko bàyyi mu dem parce que bu demee suñ ceeb dootu niin nañ ko jàpp otage laaj loo ko troisième mandat par force loolu otas la beneen bi ci des waaw beneen otas bi ci des mooy businessman yi nekk ci réew mi ñoom xam nañ ne nguur gu jub buy jubal baaxul ci ñoom dañoo bëgg di jël ay marché gera gere ak di lekk alali jirim ak di ger justice loolu xam nañ ne lii jeunesse bi di xeex mooy folli waa ju di ji andi fi nguur gu jub loolu bu amee business day yàqu Sénégal ñoom businessman yooyu ñoo dajaloo ñoom itam di dajalay xaalis di influencer ay analyste di influencer ay journaliste naan Macky Sall danañ ko lijjanti danañ ko fexe bu 4e 3e mandat di nga ko def. kon moom otaasu businessman yi Sénégal la waaye maa ngi waataat ci yàlla di waat ci alxuraan makki Sall 2024 dootoo nekk président Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang Mame Mbaye amal jom amal gàcca nekkal julit Omar Youm nekkal julit amal leen jom bàyyi leen seen wayadi gi ak seen ñàkk fayda gi ngeen nekke 2019 bi ngeen bëggee bokk ci élection yi benn sénégalais taxawul ne leen du ngeen bokk kon 2024 bu ngeen bëggee ñëw taxaw ci théorie nit ñi cela veut dire que waroo leen a bokk ku leen mën a wax ci àdduna 2024 bu weesoo Macky sàll dina duggati ci palais bii yow Mame Mbaye Niang nga di ko fa fekk yàgg Omar Youm billahi wallahi kooku waxu leen dëgg da ngeen di wàcc da ngeen wàcc da ngeen wàcc